mu ne wëllëreem la. ànd ànd bu rafet bu mat sëkk. mu ne ànd bu rafet bu mat sëkk. te te te te njëriñ la yemul fenn. mu ne te njariñ la yemul fenn. wëllëre moo ko moo ci lay aju. mu ne loolu wëllëre rek ci Ba suma wëllëre la. mu ne Amadou Ba mii wëllëreem la. te ko moo santaane sàmm mu ne suñ borom moo santaane sàmm wëllëre. sama diggante ak moom rek lépp suma wëllëre la day tëj diggante ak moom mu ne ngeen xam ne Amadou Ba mii wëllëreem la. di sant di ko sant di ko gërëm. mu ne ko sant di ko gërëm. ndax taxawaayam rafet na. mu ne fa tabaarakallaahu taxawaayam rafet na lool. li mu lépp ci lu baax mu li mu lépp ci lu baax mi ngi koy def. dox dox doxin mu ne di dox doxin wu rafet. mu ne kon na xelam dal bu baax a baax. borom mooy def mooy mu ne suñ borom mooy def mooy dindi. kenn ku ne moo gën a xam sa bopp. mu ne te kenn ku ne moo gën a sa bopp. gën la yit ci sa bopp. mu gën la yit ci sa bopp. kon yomb naa jëflanteel. mu ne kon suñ borom yomb naa jëflanteel. nañ nekk ci li ñu war a nekk. nekk ci li war a nekk rek. buñ nekkee ci li ñu war a nekkee ci li ñu war a nekk. ni ma ko waxee a xam suñu mu ne ko ni nga ko waxee rek moom moo ñu a xam suñu bopp moo moo ñu gën it suñu bopp kon bu nekkee ci lu war nekk bu nekkee ci lu ñu war a nekk danañ ci war a fekk lépp a fekk lépp danañ fekk moom mu ne kon nag Amadou sama wëllëre la sama la loolu rek laa koy la muy dénk ne li muy li may dénk sama bopp rek moom la koy dénk moom la koy dénk mu ne kon jërëjëf ba noonu rek mu ne noonu rek la demee incha allah. yàlla suñu borom yàlla yàlla digal ñu sàmm ko. mu ne suñ borom moo moo digal ñu sàmm wëllër gi. ni ko diglee itam. nim ko diglee itam. ko def sama diggante mu ne dina ko def ci digganteem moom mi ak yow. loolu rek mooy li ci nekk. loo loolu rek mooy li ci nekk. mu ne jërëjëf.